ne xale yi comme dañ ñoo yëg ba ñëw suñu kër du ñu gën a gore kon lii ñu teew ren yaa ngi ko teewee ay at yu bëri ci darajay Seydina Muhammad te it Seydi a wax ñeent moo tax ndax doomu aadama du mag kon maa leen di jégluwaat bu baax ci kàddu gi kon dañuy jëkkanteeg waxtu bi rek ndax di ko suñu papa as di waxee sëñ Xaadim lu moo war a def waxtaan mu ci biir te waxtu bi tam nañu ba noppi kon dañuy dugal waa kuréelu fàq loo xam rek. ñu ñëw tax que ñoom ñoo war a dem léegi taxu wàllum liggéey bi mooy siège yeeg base yi ñu aju foofu suba moo tax ñu bëgg ñu ñëw barkeel rek a yeewee ko suñu noppee ñu wóole liggéey bi ci dara day Seydina Muhammad kon ñu ngi jubalaat ñëpp barkeelu bu ñu wootee jarutul ñuy ñuy xaar buñ turee tur rek nañ ci barke Sëñ Tuubaa ah bu mel la donc am gan jàpp naa rek noonu nga koy teewloo waa kuréel gi bismillah si ànd bu rafet kuréel yi booba tey ñu ngi woyal kuréel tout tànk Munawirul jaar na fi ak kuréel yu bëree bëri si goxu Yaraax liggéey bi am na solo loolu cant bi daanaka tawféex na dañoo bëgg jox jëwriñu liggéey bi Cheikh Mame Thierno Cissé bu ko defee moom mu nekk jëwriñu Xidmatu Xaadim mu daal di leeral si bis bu tey bi ak ñoom bañ ko dalee tàmbali ak léegi ñaata année la bu ko defee dinañ jox suñu jëwriñ euh, Mor jëwriñ Mor si Mor Dieng joxaale jëwriñ Baye Dame Amar bu ko defee ñu sànni si ay kàddu ak cant salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw euh, bisimilah bu ko defee dañ jox suñu jëwriñ Papa Mor Dieng mu nekk jëwriñ mu Munaaru Sudoor Yonata Bes bu ko defee mu sànni ay kàddu si bisu cant bi bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات سيأتي وأعوذ بك ربي أن يهدروني والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويا سنت يا الله بابا بجلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا سنت الشيخ أحمد غامبا خادم رسول بابا خبا لا دي مبكي جلدي أنبو كتالي بيب ci bis bi nga xamanteni bi dañ koy sante Serigne Touba ndax sant bi ñi sant Serigne Touba moom moko defalon yalla defal ko yonenti bi mo waral ñi ñu jog di ko sant te suñu borom moom neena bo santul doomu adama dooma sant mo waral ñi sant Serigne Touba ngir ni liggey bi mu doon liggéeyal yàlla ak yonenti bi yep. suñu borom mak ak yonenti sallallahu alaihi wasallam dañu dañuy wat di ko sant moom kon ñun sant ko war nañu bu baax baax moo waral xam naa suñu doom yi wax dëgg yàlla taxawal bis bii mu bis boo xam ni lu kawe ci ñun la bisu mbégte la bisu bànneex la bokkoon na ci loo xamante ni bii gën na ma frappé frappé sama àdduna mooy yàlla dogal nga doon doomu aadama doonoon kenn nekkoon tuut tànk di raam di jóg di tëbëk a dal di cokki cokki ndànk ndànk ba suñu borom def la nga doon mag yàlla def nga takk soxna yàlla def nga am ci njaboot njaboot yooyu ak njabootu ñeneen ak ñeneen ñi ñëpp suñu borom def ñu doon ay taalibi sëñ Touba loolu mbégte mu rëy la ci ñun ba tax na wax dëgg yàlla xale yi bis bi ñu taxawal ñun lañ ko taxawal ñun man ak ku mel ni sëñ Baye Dame Amar ak sama gars yu baax yi nekk ci ginnaaw ñoom sëñ Saliou sëñ Góor ak gars yu baax yëpp ak jëwriñ sëñ Modou Lay xam naa ñun lañ ko taxawal man bariwul bariwul heure yi kenn di ma gis nii ci ci ci ci ci biti may taxawal déedéet waaye liggéey sëñ Tuubaa moom jaral na ma fanaan fii ba yenduwaat fi ba ba keroog muy jeex rek moo waral suñu teewaay ñu am mbégte lool ci ñoom nag doon ay njaboot yoo xam ne yu neex a sàmm lañ waaw yu neex a sàmm lañ ngir ni jamono ji dafa xaw a doy waar yenn saa yi am ci ñoo xam da bëgg sa njaboot mel nii far mu mel neneen waaye ñun ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax di sant xale bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla lii nga xamante ni moom lañ tàmbali defe naa ren mooy troisième édition yàlla nañ ko def ay junni at ñom ñu dem ba seen dom doom tamit di leen ko defal ci barke yonte bi barke cheikhul khadim ñi ngi am mbégte lool sax wallahi mbégte mi xamuñu sax fu mu ko tambalé amul yamukaay waye ñi ngi sant bu baax di ñaan suñu borom nëgëna si déwén yàlla na fi fekk ñëpp kenn baña a manqué baña bañ ci barke yonte bi barke cheikhul khadim alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akasa jërëjëf jëri moo jëm kaddu yi rafet na solo matal waaw eh, yal na saa borom nangu ñaan jëpp te mu bàyyi fi des si kanam kanam kanam macha allah si si bisu bisu cant gi cant xidmatul xadim bismillah papa dam okay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibnu abdullah waaw Baye Sall ñoo ngi lay siyaar bari te di lay ndokkeel ci bis bii waaw di sant bu baax a baax a yi ci seen rafetaay taxawaay jëf ju rafet ji nga xamee moom taxaw lu tolloog yaakaar naa bi ñetteel bi at ñu koy taxawe wax dëgg yàlla ñu ngi leen yi sant ndax lii nu ma ko mën a waxee ñun mag ñi ñun la waroon waaye dafa mel ne ñun noppal nañu si ndax euh, wax dëgg yàlla daayira bii ñu nekk muy Munawirou Soudour ñoo ko taxe woon daan am bis boo xamee dañ ko daan def at mu jot ci jamonoy koor lu mel nii la daan nekk waaye léegi wax dëgg yàlla gone yi ñoo si wuute te liñ si man sax wax dëgg yàlla ñun ñii mën ko ñun daal ñu ngi leen di ñaanal di leen di sant di leen di gërëm di leen ñaanal li nga xamee moom lañ bëgg daal ci liggéey sëñ Touba yal na leen yàlla may kattan ban eggale ko si jàmm ak salaam ci barke borom Touba kon xam naa ne kàddu yaa ngoog rek sëñ Baye saal ñi ngi jégalu bëree bëri bëri bëri jërëjëf. waaw jërëjëf di Papa Dame ñu ngi lay sant bu baax Amar kàddu yi rafet na matal na yàlla na saa borom bàyyi leen fi ba si kanam kanam bàkki borom Tuubaa muy lenn rek liggéeyal lislaam liggéeyal sëñ Tuubaa xaadim rasul mi nga xam ni mooy suñu yaakaaru tey ak ëllëg li ñu fi indi nag mooy projet bu nga xamante ni biñ ko commencé tàmbaleeg léegi toll na ci at muy projet bu nga xam dañ koo taxawal te di ci woo bépp mboole bépp mbokk jullit waaye di ci woo tamit bépp mbokk taalibe muy projet Kër Sëñ Touba. gu nga xam ne nii dañ koo bëgg taxawal fii ci Touba Yaraax projet Kër Sëñ Touba boobu nag ginnaaw biñ ko xalaatee te mu toll ci at dañoo dem wuti li nga xam ni mooy ndigal ndax murit mënta def lenn te ndigal àndu ci ci lañu demee ci ki nga xam ne nii tey jii moo fi représenté xalif général fii ci dakaar muy sëñ Mbàkke yu fay mu jox ñu ci ndigal ni ñu fépp fu nga xamante nii soxlaa ngeen moo fa na ngeen ma ko wax ma ànd koog yéen ngir liggéey bi mën a gaaw waaye teewul nag bi ñu waxtaanee moom ba pare dañoo takk suñu ndigg ndax dañ ni soo waxee ba ñëpp dégg la dangay def fulla ba li nga wax nga mën koo def si lañu boobaat léegi mu toll ci at ñi ngi def suñu lahi kàttan ba li nga xamni ni bëggal nañ ko sëñ Tuubaa te bëggal ko l'islam ci fi ci dëkk bi mu doon li nga xamni ni lu mëna am la ba biñu ñu suñu bilan bi nga xamni ni mom lañ def ci at mi objectif bi nga xamni ni amon nañ ko weesu nañ ko lool sax te japp nañ ni fi ak dewe ni inshallah rabbi loolu ñu bëgg su fekkee ay koppar dong mo koy def dinañ ci jot bu soobee yàlla ñun nak liñ fi indi mooy fexe ba nga xamante ni képp koo xam ne ni yëgul woon projet boobu di projet Kër Sëñ Touba nga yëgee ni fii am na daayira bu nga xam ne nii ànd na koog daayira bu nga xam ne nii bépp pare na pour ànd ak moom muy projet Kër Sëñ Touba boobu noonu ñu liggéey ko fii ci Touba Yaraax yëgal nañ ñëpp mbokk bépp mbokku taalibe ku ci mën a tàbbal ñàkkam nga fexe ba noo si tàbbalee sa ñàkk képp ku nga xamante ni tamit bëgg nga ci information ak lu mu mënti doon. so ñëwé ci Munaawir sudor gi nga xamni fi lañ nekk tay ñom dinañ la ko ndax ñun rek ño bokk liggéey bi muy liggéeyal sëñ Touba kon ñi ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen woo ci liggéey bu màgg boobu noonu jërë ngeen jëf ila ala zalimin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alxalqi wa xaatimi nabiyin sayidina wa mawlana muhammadin وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد موكي جلتي موكي تالبي دينا بني سنتي برم سبحانه وتعالى دي جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي جرم سيف الخديم ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu aqi ci bis bu tedd bi ñu génn di bésu tabaski ñaan borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal yàlla na bu mu doon it suñu mujjug julli yàlla nañ ko teewee at yu bari suñu boroom def ci jàmm ci réew mi yëpp dafa ñu xéewal ak sutura di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi sa wér di ko ñaan it mbooleem xulafaaw yi ci këru diine yi yàlla sàmm leen mottali seen yéene ci toolu lislaam ñu ngi siyaara ñu ñu ñu fekk ci tànt bi kilifa yi fi nekk bi yëpp ak dawaayir yi fi nekk yëpp tàmbali seeni njiit ba ka mujj ñëpp ñu ngi leen di siyaare di jox seen wàccuwaay ah mu mel ni ni ko Njaay waxee léegi ñun teel teel nañoo ñëw lool ñu dalal ñu fële ci biir mel ni suñu waxtu sax jotoon na bu yàgg waaye xëy na programme murit moom moo tëddee ni ñun am nañu compréhension boobu eh, yàgg nañu teew ci baas sam lu mel ni yàgg nañu dal eh, ni mu ko waxee it léegi loolu mooy thème bi mbokki bii bi bi ñëwee kër gi dañu wax ne dañu bëgg ñu waxtaan ci Serigne Touba ak xam-xam ma ne leen ah thème bu ngeen mës a jël de thème bii bu ëpp solo loolu nag li tax mu wax ko mooy Serigne Touba li gën a rëy ci ay mbiram mooy mbindam mbindam sëñ bi ko fonkoon mbind la. loolu dafa jaadu képp koo xam ne ab taalibi murit nga nga xam li sëñ bi doon bind lu mu ni mu doon sonne ci xam-xam nga góorgóorlu ci loolu xam lu mu doon jàngale mais fëgër fëgër rek sëñ bi amul moroom amul moroom rek te xamoo lu sëñ bi jàngale bëri na ñuy sonne ci ak murit xamuñu luy murit nu sëñ bi sose yoonam wi nu ci lan la ko nosi luy cosaanal yoon wi ay ñu xam ko mooy jàngaleem Serigne Touba sëñ bi njàngale mi mu indi dara bu ko solo waaye sëñ bi amul morom amul morom rek yooyu tam dafa laaj di ko firndeel di ko confirmer ci tënku ci njàngaleem boo xoolee xam-xam ni mu amee solo nga xam ne suñu boroom tabaraka wa dafa tagg sax ñooñ xam nitu xam-xam yi boroom xam yi ci ay aayaat yu bari daraja fi leen yàlla teg wane ni ñi ko xam dëgg mooy ñi ko ragal ñi ko ragal dëgg ñooy boroom xam-xam yi innama yaxsha allaha min ibadihi ulama kooku benn la ci بوخولي تمت فنان شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم قائما بالقسط سونو بروم بيم وويلي بوكو موي نانغو ني موم دانغو يالا لولي الملائكه يسيدي نانتي بروم خام خام لا تي واخ كوم بروم خام خام نيوم خام دوبك يالا yarfa'u llaahu llaziina euh, aamanu wa llaziina uutul ilma darajaat benn la ca moom it moo tax Ibnu Abbas ci aaya boobu dafa wax ne boroom xam-xam yi ëpp tiim nañu kaw jullit ñi ñi mel ñu toll ca tolluwaay ba ñu toll ñoom juróom-ñaar téeméeri daraja mu ne boo doon traversé daraja bu ne ak moroom ma doxu juróomi téeméeri at la kon nga gis li boroom xam-xam yi rawee nit yi kese yi sore na pour wax la rek boo xoolee ginnaaw ayat yi li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci xam-xam nit ki ni mu war a yittewoo xam-xam bari sax boo sóoboo yoon ngir sax xam-xam yaa yoon di sax xam-xam sóobu nga yoonu ajana te ne benn bunt boo jàng rek ci masala diine yi benn bunt boo ci jàng rek moo gën joxe euh, juróom-ñaar fukki maanaam mu gën bokk gépp euh, xeeti mbaax bu ñu def ci xeeti sarax yiw lu mu mën di doon benn bunt boo jàng rek dafa am solo mbokk yi pour ñu ibbee lu mel nii pour wane importance xam-xam bi Serigne Touba ñëwee nag gis ni xam-xam fii la toll nii la amee solo waaw mu ne mu changé ma bi su fekkee mën na nekk mbokk yi moo ko wax waaw mu ne dafa leerul pour micro bi baax na mën nañ def waaw mhm. bi sëriñ bi xamee loolu moo tax moom bi muy sañcee dëkkam bi gis nga fi mës a jaar yëpp daaw leerloon naa ko ca Mbàkke Kajoor Sëriñ Tuubaa ci daara la feeñee famille boo xam ne ay doomi soxna lañ daara rek lañ xam ci njëlbeen limit ak jàng ak jàngale ca la nekkoon foofu ci Mbàkke Kajoor ba mu fa jógee yi ñëw Daaru Salaam loolu la fa nekkee woon ba ni muy sancee Touba gis nga muy sanc Touba lim fa ñaan boo jàngee Matlabul Fawzayni li sëriñ bi ñaan boromam mu defalal ko ko ci dëkk bi di Touba wajaal binaiya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi wajaal dëban maskana taallumi wa mawdi al fikrati wa tafahumi wo maskana irsali wa ta'lim wo maskana taswibi wa tafhimi xolali nena yow sama borom ma ngi lay ñaan nga defal ma sama dekk bi di touba muy dekk xam xam di dekk jeffe xam xam xam xam do rek fokk mu and jeffe na doon dekk bu ñuy jang lañ jang ñu ko jeffe di doon dëkk bu ñuy toppee sunna ndax jëf ju mën di doon dëppale wuñ ko ak topp sunna du am njëriñ yalla na bu mu doon dëkkub bidaa na doon dëkk topp sunna wa asalaamaaleykum am na solo lool waaw waaw kon mu ngi noonu waaw ok sëñ jërëjëf jërëjëf walaay euh, nañu gën a góorgóorlu rek ñu xam sëñ bi ci lu mu nekkoon waaw ah, li ñuy gis nii li ci bëri bëri na euh, wuti nag ku baax ni ci lu mu nekkoon waaw li ci bari nag comme ni ma ko waxee léegi rek ñi war a wax dëgg waxuñ leen dëgg gi waaw sëñ bi sëñ bi wax na ne ku la dig àddina te jaamuloo wala yàlla nax na ku la dig teraanga te liggéeyloo wala nax na yooyu ci nekk maxaal mënta nekk c'est impossible sàkk leen lay ñu dimbali leen loolu mooy la góorgóorlu def li nga war a def li nga manqué ñu remplir la ko waaye toog fi nga toog ñu lépp mat mais bu mag ñi defam ñëw liggéey bi dina yegg si nañu bàyyi di yombal affaire yi fi yombul rek mag ñi dañoo xaw a dee soo ko am dara mbir mi a dee la àddina comme sëñ Samba yi dañuy wax rek rayante loo bëgg fii ci àddina da ngay gaañ sa nga bëgg ñëw nag nag jàpp ne nag lépp sotti kon nañu góorgóorlu wàllu xam-xam bi comme ni ko waxee kuy jàng yi bul jàng xam-xam biir werante bul jàng xam-xam ngir foo rek bu débat ñëwee rek nga amee de bi ku gàpp nga gàgganti yooyu yëpp sëñ bi xeeti xam-xam yooyu sëñ bi euh, ŋañ ñi na ko mais boo jàng rek bul jàng xam-xam ngir nit ñi di la si di la ran borom xam-xam baa ngi nii ku gàpp nga gàgganti yooyu yëpp tax bu am solo xam-xam bi jàng nga ko ngir jëm bi yàlla rek xam-xam du riwaaya xam-xam di raaya moom mooy mooy nga xam ne moo solo xam-xam bi bu duggee ci yow it lañ ci soxla mooy jub gi rek waaw moom lu tegu ci jub taxul ñuy wax fa la ilmu in lam yufdi shaxsan lil huda fa innahu yajuruhu ila rada suñ ci waree xam-xam bu tegul nit ki si njub foog dana ko wommat jëme ko ci alkande loolu wax na ko ci masaaliku jinaan mooy masaalik bii ma leen wax léegi ne jaaru na ci képp kuy murit nga gëstu ko xam li li fa sëriñ bi jàngale nee nak ba ci masalib bi wax na fa ne seytaane nax na nit ñi manam wor na nit ñi ni mu wor nit ñi moy fexe ba ñu itteewoo xam-xam yu leen amul amalul lu la ci mëna déggé du xam-xam yëpp am njëriñ wax na ko fa la ci kullu al ilmi naf'an zahtiwa wa kullu al ulama fi istiwa sin sin bi ne lu xam-xam yëpp am njëriñ waaye borom xam-xam yëpp yemuñu ne am na ci xam-xam yi xam-xam yuy wowal xol di waral ak rëy di fàttaloo yàlla yooyu xam-xam da yàlla ci yàlla musal yooyu yàlla bu ñu fàttaloo di jur ak rëy di wowal xol te loolu am na de nit am na ñoo xam ne xam-xam yi ñuy xuus di ko jàng wallahi orienté wu leen ci yàlla du leen jural lu dul yëg seen bopp gis nga nit di dem ba toll ci xam loo xam ne dafa jàpp ne moom rek mooy dara moom rek moo représenté dara ku mu toogal xeet la te loolu lu bëri ci dëkk bi yooyu xeet xam-xam